jërëjëf imaam bismillahi rahmaani rahim fi ñuy commencé rek mooy que ñuy remercier press bi presse bi nga xam ni depuis dix heures ba léegi ñoo ngi fi leen remercier di di maslu ci retard bi am ci ci liggéey bi di remercier aussi tous nos membres qui sont présents li tax ñu convoqué assemblée bi li tax ñu convoqué journée bi c'était c'est très c'est très simple c'était pour faire l'évaluation du pèlerinage 2023 parce que ñëpp xam ne ni que bi ñu jógee Màkk rek waroon nañ def évaluation pèlerinage 2023 mais ñu bàyyoon délégation générale convoqué nit ñi def une évaluation du pèlerinage ñun on avait jugé que évaluation bi amoon loo xam ni desoon na ci ñu convoqué suñuy membre waxtaan ak ñoom wax leen naka leen gis difficulté yi ñu amoon Arabie Saoudite ak yan proposition de solution la ñuy la def pour vraiment dégg nga faire face à tout à toutes ces donc loolu dafa ñu convoqué effectivement nos membres pour que ñu ñëw te ñuy waxtaan ci def évaluation pèlerinage 2023 def perspective organisation pèlerinage 2024 di remercier ñëpp di wax ni que euh, di jox suñu responsable euh, communication comme ça bu communiquer yéen rapidement merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc euh, maa ngi tudd Reytiam Prera nekk voyagiste privé yor communication wu regroupement national des opérateurs des organisateurs privés du Hajj et de la Omra mooy Renofus. RENOFUS mooy association boo xam ne dafa regrouper plus de deux cent euh, quarante organisation yu nekk si at gi fii mooy suñu siège ci mosquée Mame en Niang bi tey nag euh, dañuy faral di def chaque année dañuy tenir suñu ay assemblée générale ordinaire ak assemblée générale d'évaluation ak aussi durant toute l'année bureau bi dafay tenir régulièrement ay réunion comité directeur ak réunion bureau donc euh, mu nekk activité yoo xam ni tout au long de Euh, activité Renofus yëpp mooy toppatoo lépp lu jëm ci aj gi dajale ay membre am euh, jàppale leen encadre leen ba ñu gën a mën a professionnel ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def ci wàllu ak màkka bi ñu ko créé ba tey nag gis nañ ci ay avancées yu am solo parce que ñëpp mën nañu seede ni liggéeyu privé yi gis nañ ni léegi macha allah dafa gën a mucc ayib dafa gën a jaar yoon déggatu leen fi pèlerin laissé en radd déggatu leen fi yenn problème yi lépp lu am dinañ ko régler ci suñu biir ba nga xam ni liggéey bi dina jaar yoon mais aussi euh, voyagiste bi du ci loru mais surtout pèlerin bi du du ci loru et vraiment c'est tout à l'honneur de de des acteurs comme ceux qui sont dans ces organisations la ñu bëggoon ko leerale pour ngeen gën a xamee ak ñi nga xam ni ñoom ngeen toog jàkkaarloo ak ñoom ñëpp ñi toog ci table bi ay voyagistes privés lañu fii ñëpp dañu yor agence di yóbbuwaate Màkka donc euh, dañu pour bañ leen retenir rek dañuy def euh, résumé li nga xam ne moom moo waral kii bi dinañ ko essayer def en français et en wolof bu ko defee yéen tamit ngeen mën ñuy jàppale ci relais bi comme ni ko suñu président colonel Moustapha Diong waxee ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm parce que lu public bi jot yéen yéen leen ko jotali et c'est important parce que vous êtes nos partenaires ñu bëri ci yéen yàgg nañu couvrir depuis plusieurs années ñu bëggoon rek rapidement def euh, benn déclaration succincte en en français et en wolof si vous le permettez. léegi li ñu bëggoon wax mooy ak 2023 bi def nañ ko sant yàlla dem nañ si jàmm ñibbisi ci jàmm privé sénégalais bi yóbbu na onze 11 800 pèlerins donc euh, organisation bi mën nañu ne dans l' ensemble. Euh, jaar na yoon donte màkk dafa metti am na ay jafeñ-jafeñ mais quand même privé yi responsable nañ ànd ko ak état bi jël ci seen responsabilité ba mu mat sëkk ba li nga xam ne moo di yenn jafe-jafe ñi nga xam ne relever nañ ko tamit ñu ngi def tout pour di ci apporter ay solution ba bi ñu ñëwaatee ku ci nekk ci ñu def nga sa rapport d'évaluation transmettre ko autorité yi ñu am yaakaar ci ni dinañ ci jël en contre mais li ñu mën a jàpp rek si principal jafe-jafe yi ñu amoon moo nekkoon surtout état bu mun na ak Arafat ak aussi personnes age yi nga xam ni bëri woon nañ torop parce que xam ngeen ni dañu ubbi après Covid bi ñi nga xam ne dañu amoon moyen plus de 65 ans ñëw donc mag ñi dañu xawoon bari ak tàngoor bi metti woon màkk aussi loolu nekkoon jafe-jafe mais jafe-jafe bi gënoon a metti si ñëpp nag du Sénégal kese mais ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci aj bi moo nekkoon état bu mun na bi ak Arafat bi vraiment biñ ci dellusee aussi def nañ ci ay recommandations ne nañu ci teel a jublu ba mën a régler problème yi surtout problème mu restauration bi ak problème mu hébergement yi foofu te transmettre nañ suñu euh, recommandation yooyu yëpp délégation générale au pèlerinage ñoom tamit euh, promettre nañu ni dinañ ci waxtaan ak autorité saoudienne yi pour ñu mën ci remédier ba nga xam ne condition de vie de séjour pèlerins yi surtout sénégalais yi dina gën a nekk lu mucc ay parce que Sénégal am na image bu rafet Arabie Saoudite donc il faut que ñu continuer def tou pour que image boobu ñu am bu respectable boobu ñu am màkk ñu bañ ko perte donc euh, yeneen difficulté yi ñu amoon daaw aussi moo nekkoon affaire transport aérien bi donc euh, yéexoon nañu ko yéexoon nañu ko régler mais euh, ñuy ñaan yàlla ren problème boobu ñu mën si teel a jublu ba nga xam ni du nekk jafeñ-jafeñ bu ñuy jaaxal parce que xam ngeen ni 50 pour cent pèlerins yi ñu war a yóbbu compagnie bi état bi di affrété moo leen war a yóbbu donc li ñuy ñaan aussi mooy ñu mën a teel a am date yi mën a teel a xam aussi kañ la la ñuy mën a dem ak ban compagnie moo ñu yóbbu ak euh, liggéey bi naka lañ koy mën a defee pour ñun tamit ñu mën a jël suñu ay disposition assez tôt donc euh, mais nag principale information bi ñu bëggoon jàllale pour ñëpp yëg ko mooy calendrier ak dafa changé Arabie Saoudite ren dafa décidé ni fii ñuy waxee ak yéen nii ubbi nañu ñoom liggéey bi inscription yi tàmbali na donc depuis le 16 septembre 2023 avant dañ doon toog ba ay booru weeru koor nit ñi ñëw di inscrire mais léegi loolu dafa changé weeru koor gi fi mu ne nii dina fekk opération yëpp jeex donc loolu aussi dañu bëgg nit ñi jàpp ni c'est une information majeure que calendrier at dafa changé ren que ni ñoom yónnee nañu calendrier officiel bu bees bi mi ngi commencé le 16 septembre 2023 te mi ngi tëj le 24 avril 2024 mais 24 avril bi sax loolu mooy fin wu délivrance visa mais au mois de février 2024 ñun instant bi ñuy nekk ci élection boobu day fekk opération ak yépp jeex na donc loolu aussi baax na sénégalais yi xam ko ba képp koo xam ne da nga bëgg a dem màkk nga teel a jóg xool ki nga xam ne wóolu nga ko nga dem rapproché wu ci moom pour teel a bindu pour bañ a am problème parce que bu dul loolu ku toog di xaar weeru koor wala mois de mais wala mois de kii dina fekk opération yëpp tëj donc opération bépp bu jëm ci wàllu aj dafay arrêté à partir de février 2024 lépp luy visa dernier visa yi mi ngi génn avril 2024 donc loolu vraiment dañu bëgg sénégalais yi xam ne Arabie Saoudite ni muy liggéeyee léegi dafa digitaliser lépp système la teg système bi avant nit ñi di commencer opération moom day génnee calendrier ce qu'on appelle les dates charnières mu joxe ko léegi nee na fi mu nekk nii avion am na date boo xam ne si mois de novembre bi ku ko amul autorisation yow bokkatoo nee na képp kuy jël hôtel wala ngay def contrat na nga xam ni bu février passé yow bokkatoo képp koo xam ne da nga war a yóbbu nit màkka boo génnewul sa ay visa ba avril yow bokkatoo donc c'est important nit ñi xam ni kon liggéey bi ñun déjà tàmbali na Arabie Saoudite te comme que ñun ak Sénégal ak Arabie Saoudite moo koy organiser et principalement Arabie Saoudite bu génnewee résolution yooyu baax na ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi aussi ñu porter ko à la l'attention du public wax leen ne il y eu des changements majeurs ñu mën ko intégrer bu ko defee képp koo xam ne da nga bëgg a dem Màkka ci atu deux mille 2024 bi nga bañ a toog ba weeru koor wala nga bañ a toog ba ay mois de février wala mars mais nga jóg dès à présent nga jublu ci opération boobu te xam ne ren boo teelul jóg doo mën a teel a euh, mën a bindu am na aussi yeneen yoo xam ne génnee nañ ko ñoom nee nañu ren ku teel a fay mooy am place les premiers venus solon les premiers bi loolu nag dañ siy ñaan euh, ñun ñëpp aussi ñu ci ñaan autorités yi ñu jàppale ñu si lu ñu mën ba nga xam ne ñoom it dinañ si mën a teel a jóg pour lépp loo xam ne ñu ni dafa dox suñu diggante ak Arabie Saoudite ñu mën ko teel a régler ba nga xam ne aussi Sénégal dina am place yu baax dina am position yu baax pour que ñun tamit ñu mën a def aj bu mucc ayib mën a def aj bu jaar yoon donc loolu daal moo nekkoon principale information bi ñu bëggoon a porter à l'attention du public wax leen ne calendrier bi dafa changer léegi calendrier bu bees la système électronique complet mooy liggéey liggéey bi te calendrier bi prédéterminé nañ ko depuis mois de juin avant nit ñi di jógee Màkka la ñu génnee calendrier bi mooy Euh, ñëpp nañ yëgandoo information bi ñun tamit au Sénégal ñu ne woon nañ ko yëgal nit ñi pour ñu xam ni ñun acteurs yi nekk ci liggéey bi principalement ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci office mais ànd ak communauté bi ak bi yëpp képp koo xam ni acteur nga rek message bi sa message la bu jëm à l'endroit du public euh, ñu préciser euh, privé sénégalais bi mi ngi convoyé daaw onze mille pèlerins donc état bi moom moo yóbbu mille huit cent soixante pèlerins yi des donc euh, quota Sénégal global ci aj bi 12800 la privé bi 12860 privé bi mooy yóbbu 11000 pèlerins état bi yóbbu 1860 pèlerins léegi nag datu clôture clôture opération aj yëpp Euh, mi ngi nekk le 29 avril 2024 il faut bien noter cette date là donc toutes les opérations liées au hajj seront pour les visas pour les visas donc euh, dina fekk war na fekk nit ñi fay ba fay hôtel yi ba fay avion yi ba defar planning yi ba dugal yépp ba génnee dernier visa yi le 29 avril 2024